Sweet Beauté Ousmane Sonko ak aji Sarr yëfi nag ci marché bi la la nekkoon. Mhm. léegi mu at Ousmane Sonko ba tey mu ngi laaj passeport am ngir ñu delloo ko ko pour mu génn réew mi mën a doxe ay yitteem mais ba tey contrôle judiciaire bi nanguñ koo teggi naka ngay jàngatee loolu. waaw xam nga man bu mhm. jox ko ko. mu ngi si jàmm Ousmane Sonko mu ngi si jàmm. Mhm. xam nga kan moo nekkul si jàmm. Mhm. ku jar a lijjanti dëgg-dëgg. mooy Ndeye Khady. borom ci jëlee feebar boo xam ni feebar boobu bul xam fu mu koy fajoo yaa ngi dégg. Mhm. gars yi ñu ngi coow ci kaw rek mais la ca suuf mooy wax bi te na mu amee tamit wax dëgg yàlla kon loolu rek waroon naa permettre Ousmane Sonko ñu libéré ko ay affaire am mu dem yoonam yaa ngi dégg. xool way wuy këpp gaal kenn du ko jàng ci tefes. yaa ngi dégg. Mm. te affaire Ousmane Sonko bii ñun man de bu ma sañoon wax dëgg yàlla ah mun nañ ko teg si suuf munuñu ko teg ci suuf. mun nañ ko teg ci suuf munuñu koo teg ci suuf parce que xam nga lu tax. Mm. tey boo ne woon nañ ko teg ci suuf am na ñu ci fukki bakkan ak ñeent ñoo ci rot. am na wala amul. Mm-hmm, mm-hmm. kenn nit jële ci feebar bu xam ni daanaka boo koy seet nu nday xadi est-ce que nday na wér jàppal loolu. ba ba tey déggoo ko wax waxi nday xaddi de ni nga ko doon ketal yaa ngi dégg ko xam ne pikiir bi rek benn pikiir bu nekk pikiir bi ñu ko doon pikiir moom benn pikiir bu ñu ko ci dóor voilà day mel ni yow ñu ñu ñu téye la rek euh, kii la euh, sansal diwliñ dugal la ci. kon na. parce que bul bul fàtte ni nday xaddi dafa am leneen ak leneen lu ko ci dal. ak yeneen ak yeneen bëgguñu nekk fii di di wulliwaat coow. mais bu ma sañoon ñu ñu ñu li ñu ko war a defee ñu def ko te kenn ñu def ko ci njëkk ak taraanga parce que affaire boobu garaaw na garaaw goo xam ne nii ah. Mm-hmm. nëbb ko moo gën wulli ko. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. Mm-hmm. billaay wallaay moo nañ jox sonk rek mu dem yoonam aji Sarr ñu libéré ji ko bu di liggéeyee mu liggéey moo gën ñu teg ko benn place. di continuer wala dañ koy fay. muy noonu ah. Taïfine. non si si ma ak yow bokk ñu gis-gis li ci yi. waaw ah. li ma gis man mooy bu bàyyi rek yoon def liggéeyam. yoon def liggéeyam waaw parce que dafa am loo xam te dafa amoon mois de mars. yaa ko wax léegi. Taïfine fukki ñeent. may ma rek fukki bakkan ak ñeent rot ci. waaw. te lan moo waraloon coow loolu. waaw mbiru Ousmane Sonko moo ko waraloon. Adji Sarr waaw. mbiru Adji Sarr it moo ko waraloon. waaw kon dañuy topp affaire bi jusqu'au bout ba lu yoon maye mu jël. waaw léegi. li ko yoon may bu ko yoon mayee ne libéré nañ ko toppatuñ ko benn sanction yaa ngi léegi toppatuñ ko si dara. jox ko passeport am. su fekkee ne yoon da topp ba léegi moo def ak deful wala moo def moo def. bu ko yoon may mu jël. waaw mais nag mënuñoo accuser la lu toll noonu. réew mi yépp génn. daanaka ba xëñ na réew mi ay ñaanu ko téye wala ak kilifa diina yi wax ba yëf yi tey yëf yi mais su du loolu ba tey kon fukki bakkan ak ñeent yooyu sax mën na ko kan moo ko waral ñaari jëmm yi muy Ousmane Sonko ak Adji Sarr noonu loolu dañ koy ba xam. waaw léegi dama la yow ma laaj la benn affaire tey su ñu nekkoon man ak yow nga dem sosal ma kan moo cause problème bi.

yoon na def. du ñu xëy xëy un bon jour teg. mais yoon bu. waa déglu ma rek du ñu xëy xëy un bon jour. nit ñu sanctionné la tuumaale nañ la si lii. wala waxal nañ la lii ba réew mi ñëw ñu di confisqué sa passeport ñu xëy xëy un te tegaatuñu ko ay avocat ñu ñu nit ñi ñu ngi toog di xaar di déglu ay résultats. di déglu ay résultats nañ jox la ñu léegi dama lay laaj. dama ah, lay waaw wuyu ma wuyu ma dama lay laaj rek man dama lay laaj. Mhm. Taïfine Adji Sarr Adji Sarr si boppam Ousmane Sonko ñooñu doon dee si mbedd bi kan moo leen kan moo leen rey. kan ah, euh, léegi loolu gënul neex a lijjanti. comme naka. <laughs> Ah, <laughs> la gën a neexee lijjanti. <laughs> la dugal ci biir kàmm bi. waaye danga ne Ousmane Sonko. nañ ko lijjanti. Hmm. fii ñi fi laal te du am benn problème a ngi fi. bari fi ba dee Ousmane waa xaaral man Ousmane waxuma moo def waxuma deful yaa ngi dégg yaa ngi dégg mais léegi dëkk bii booy dox yaa ngi gis ay auberge wala gisoo. xanaa déggoo li ma la wax. non kay fi tontu ma rek tontu ma rek. mooy Ousmane tontu ma rek non yow niñ mais mais yow yow yow nañ dox ak Ousmane. mais li ma wax mooy que ni na yoon def wax dëgg mënuñu la accuser dara yow ba pare si supposons ma jël ko exemple ci yow. yow ñu accusé la seen bët ñu ne yóbbu nañ la. confisqué nañ sa passeport amoo droit génn dëkk bi ñu xëyaat ne non non delloo nañ ko passeport. leer na la léegi leer na la wala leeru la. lan leer na. am leer na la wala leeru la. waa léegi dama am na yoo fi gis yu xam ni waa da nga déglu am na yoo fi gis yu gën a leer yooyu est-ce que leer man li leeral justice. moo koy leeral dama ne xoola yow dama ne. man du man maay leeral justice mooy leeral dama ne yow xam naa la bu baax dama laa xam. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. yi ngay wax nii. Mm-hmm. yooyu du wax. dama ni am na lu gën a leer lu bokk ca ñoom. nit ñi di ko gis mu doon ay vidéo te leerul. yow déglu naa ko Ousmane Sonko. waa de waa doo ma déglu de. Euh, wax la ñuy wax. lu justice tegu. justice yow yaay justice yow. man de man nañ jox kii passeport am. nga naan bala ñu ko kaa jox mu leer. mais yow taay fii yow lan mooy sa problème yow. nga ni da xoola dañ ko koy jox nag yow Tacine ku soxor nga yow. <laughs> billaahi da ngaa soxor. barke rasulullah yow da nga soxor. Ah, non non mais yow mais yow kaam wax la benn affaire nañ ko jox kayitam mais Tacine nee nee ñu jox ko kayitam. boo ba léegi boo ba léegi. waaw moo ma woo. wax bu ma woo. wax bu ma woo. tay jii xoola wax la benn affaire soo ma doon àtte man ak Aliou. yaa ngi dégg. nañ dem su soo ma doon àtte man ak Aliou. tay ah? ba pare nga jël Aliou làq yow anama man. làqu ma kenn de. xanaa déglu ma de eh eh fi ma lay waxee ana aji saar laa la laaj sànq. yaa gën a xam ci mu nekk xoola sunk kay mi ngi dox soxlaam. Ah, Aliou Aliou Aliou ku def dara la ñuy nëbb de. ku def dégg ku def doo dégg dara. Ah, yaa ngi dégg Sonko xoola Sonko ëppoo ko liberté yow ëppoo ko liberté. Sonko ëppoo ko liberté. dégg nga wax en tout cas daal mbir bu amee. nañu leeral ba pare bu ñu leeralee ñu jox ko passeport bu yow laa mun a munoo ñëw dëkk bi yëngu <laughs> ah, ay ay ay ay nit bakkan rossi dëkk bi yëngu ba pare ay bakkan bëgg a xëy xëy un bon jour delloo ko passeport comme si de rien n'était nday xadi du sa moroom jigéen ah comme si de rien n'était la day woo nday xadi li ko dal ko ko waaw ko dal kenn yéene ko ko ku ko ci mën a dimbali te yàlla tax nga dimbali ko te yàlla tax est-ce wax nga fi lool mais xam nga bi ñuy wax fi waxu Ousmane Sonko lañu wax kii dama ne waaw dama ne bu ñu waxee waxu Ousmane Sonko waxaale nañ Adji Sarr waxaale yaa ngi dégg man daal lu ma wax Adji saar nañ ko bàyyi mu dem. foofu Ousmane Sonko mooy nañ ko nañ na yoon def liggéeyam. yow dañ la def yow yaa yoon. muy noonu kii nee na nañ ko bàyyi mu dem kii ne na yoon def liggéeyam kenn ku ci nekk noonu la sénégalais yi di. dundee jamono ji li muy wax ni hmm? kenn ko moom dong ko ah, wax. am na ñu koy wala kii ah. politicien moo nekk yow xanaa ku toog fii kenn ko politicien. yow yow yaay politicien mi ngi nii kii kii yow yaay politicien bu mag bi. Ah. voilà affaire xam nga fas boobu ñu defee. fas waa ngi kii nii mooy fas bi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 dinga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi